a بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم mbokk yi safoo seen télévision Mouslih TV Sénégal ñu di nuyu fi ñu leen daan nuyoo euh, di leen ñaanal jàmm ci yéen di leen euh, jéggalu ci programme bi nga xam ne dafa taxawoon jamono yi ñun yi nekkoon ci déménagement waaye lépp yiw la lépp jàmm la ah tey nag ni ñu leen di nuyoo ci seen émission teggin mooy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mooy ni ñun ñëpp ci yàlla la ñu jógee ci yàlla la ñuy dellu li tax loolu mooy benn figure bu mag jëmm ju mag jëmm ju sell mooy Mouhamed Moursi ak docteur nekkoon raisu misra moom moo génn àdduna ci altine bi muy docteur Mursi moo nekkoon président wu bi nga xam ne moom lañu njëkk élire démocratiquement ci réewu Égypte depuis mille huit cent euh, mille neuf cent cinquante trois juróomi président yi fa jaar yépp dañoo coup d'état te ku ci nekk sa morom nga coup d'état sa am de confiance ki nga xam ne moo nekkoon sa premier ministre euh, wala ki nga xam ne moo nekkoon sa njiit yow mu jox la lépp lépp lépp luy pouvoir nga yoral ko arme bi wala mu def la nga yor porte parole wala nga yor sécurité ñoo ñooñu ñooy coup d'état ñi leen wóolu woon ba ci 2012 bi nag gannaaw printemps arabe bi bi mu amee 2011 Hosni Moubarak ne di wàcc yow mi gannaaw Tunisie bu ñu yëngoo gannaaw yeneen dëkk yëpp bi ñuy yëngoo ixwaanul muslimin ànd ak population wu Égypte ne kat Hosni Moubarak faw mu génn ci réew ma ndaxte mu fa nekk ay ati ati at ba feebar ne doomam moo koy doon mu doon mbir moo xam ne képp koo di xeex ak àq yelleefu doomi aadama loolu metti woon na la bi mu demee noonu El Baradei nga xam ne bokkoon na ci figure politique yi gën a mag ci Égypte delluwaat réewam bëgg laaj réew ma gannaaw bi jeunesse bi génnee daal di wàccee ki nga xam ne moom mooy président ba ñu daal di koy jàpp ñu ne nag dañuy dem ci ay élection présidentielle ixwaanul muslimin ñoom newoon nañu du ñu dem waaye seen kuréel ga dafa def ñaari xaaj ñenn ñi ne nañu dem ñeneen ñi duñu dem biñ demee ci Maktabul Irshad noonee la majorité bi daal di ne 56 pour cent ci ñi nga xam ne mooy Maktabul Irshad ñoom ñu ne nañuy dem ci li nga xamante ne mooy élection yi 52 ne ñoom duñu dem bi mu demee noonu comme démocratie la Ixwaanul Muslimin di demee moo tax ñu ne kat dañuy fexe ñu dem parce que base bi nee nañu nañu dem jël réew mi wala ñu dem laaj li nga xam ne. mooy réew mi parce que am nañu àq ak yelleefu mën koo amal noonee la yàlla dogal candidat bi njëkk biñ ko yëbboo Cour constitutionnelle dañ ko rejeté ndax dafa am ay condamnation yoo xam ne dañ ko ko defoon ñu mu jël docteur Mursi mi nga xam ne ingénieur la daal di koy jël mu jiite li nga xamante ne bii moom mooy élection yi donte moo nekkoon ki jiite woon parti bi nga xamante ni bii mooy waa parti frère musulman yooyu bi mu demee noonu ñu dem ci élection yi ñu am cinquante et un virgule soixante treize pour cent te ñi nga xam ne voté woon nañu ñoom nee nañu ixwaanul muslimin li ngeen proposé ci projet de société moom moo leen gënal lépp loo xam ne gis nañ ko fa ndax am na ñoo xam ne te yóoru salafiya lañ yoroon mooy salafiya bi moom lañu jël def ko ci seen kanam ñeneen ñi dañuy jëloon ci wàllu lépp lu jëm ci wàllu xuququl insaniya mooy droit de l'homme ñenn ñi jëm ci wàllu démocratie ñi dem ci wàllu socialisme waaye ixwaanul muslimin yi ñëw ne leen kat al islaamu nizaamu shaamilun yatanaawalu mazaahirul xayaati jamian ñun kat li ñu jëm mooy l'islam dafa global te dafa enveloppé lépp bi mu demee noonu ñu tegal leen programme iqtisadiya ci wàllu économie tegal leen programme ci wàllu alxukuma tegal leen programme ci wàllu alaqaatu daaxiliya wal xaarijiya mooy ay relation interne ak externe yoo xam ne doyoon na leen tegal leen benn plan de redressement boo xam ne nit ñi nekkoon ca dëkk ba doon lekk alalu réew ma te teguñu ko ci yoon ñu foqati ko ci seen ay loxo delloowaat ko réew ma réew mi delloowaat ko population boobu projet bu mel noonu lañ leen tegal te loolu lépp ñu ngi ko tëbbee ci téere imam Hasanil Banna boobu muy majmuatul rasail te téere boobu lañ ko tibbee te majmuatul rasail ki nga xam ne imam Hasanil Banna dafa référé woon ci alquran référé ci sunna nabi sallallahu alayhi wa ak salafu saalih ngir mën a delloowaat xeet bi teddaange gi nga xam ne amoon nañ ko jamono yonent bi amoon nañ ko jamono xulafaawu raashidun amoon nañ ko ci jamono yu salafu loolu dafay dëppoo ak nature doomu aadama mooy ku tooñ nañu àtte àtte wu tolloog tooñ wa mu tooñ ku ñu tooñ ñu delloo ko àq bu tolloog ba nga xam ne moom la nangu woon ci yow amul ne bi diw buur la amul ne diw baadoo la amul ministre amul planton ñun ñëpp ñoo yem devant la loi nous sommes tous égaux devant la loi li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bu fekkee ne ñu ñàkk bu ñu sàccee ñu dagg seen loxo député yi président yi préfet yi gouverneur yi homme politique yi bu ñu sàccee kenn dagg seen loxo nee na loolu mooy indi injustice te injustice fu mu am rek al fawda moo koy am mooy pëccëxoo guerre civile lay indi wala soulèvement populaire walla mu doon kenn ku ne yaay fajal sa bopp su boobaa barbarie mooy daal di am noonee la projet boobu waa Égypte gisoon ne neexul ba neexul waaye docteur Morsi bi mooy la solution moo tax seen slogan ci at boobu mooy al islam huwa al hal mooy l'islam est la solution loolu lañ leen proposé woon ne wax lu bees li fi nekk mooy ngay jullit ngay chrétien ngay juif ngay bouddhiste ngay athée loo mën a doon boo nekkee ci réew mi war nga gis sa bopp ndax tu es un citoyen à part entière amul dañ lay boddi compter ndax yow chrétien nga wala ñu boddi compter la ndax yow juif nga wala ñu boddi compter la ndax yow ay xërëm ngay jaamu loolu c'est pas important comme quoi que tu as une nationalité égyptienne da am droit ak devoir yoo xam ne réew mi daf la ko ameel nga ameel ko réew mi loolu mooy daal justice loolu mooy équité loolu mooy euh, une gestion sobre et vertueuse boobu ñuy wax te suñu président di ko wax misaal boobu docteur Mursi joxoon nañ ko docteur Mursi ñu xam ne il est né en 1951 le 8 mars le 8 août 1951 yàlla dogal ko mu nekkoon doomu paysan mooy doomu baadoola duñ koy waxee fii ci Sénégal te waxuma ne paysan baadoola la mais jom gi mu am fit gi mu am xam ji mu xam ne dafa war a tedd dafa war a bokk ci ëllëg ñi nga xam ne ñooy diriger Égypte moo tax mu fonkoon njàngam waajur yi jàppale ko ci loolu. ba mu ay diplôme supérieur en Égypte ba 1978 ci lay def université de Californie génne fa diplôme ingénieur en ingénieur ci biir loolu ni mu jàngee woon lii gi mbind mu jëm ndeyjoor bi noonu la jàngee woon mbind mu jëm càmmoñ bi ndax mokkaloon na alxuraanul karim bi mu nekkee xale moo tax yàlla dogal ni mu xamee ne alxuraan daf ko jox responsabilité bu rëy en tant que individu wëlbati ko joxat ko responsable en tant que un responsable moral wala un responsable collectif Mouhamadul Moursi xamoon na responsabilité boobu moo taxoon bi mu jëlee nguur gi mu def discours bu am solo ne yéen waa Égypte li ñu bëgg mooy ngeen xam ne ñun benn lañu ñun ñun benn lañu li ñu war mooy ñu àndandoo àndandoo tabax suñu réew àndandoo defaraat suñu réew lii nga xam ne ay yàqu-yàqu la ñu fexe ñu defaraat ko injustice bi fi am ñu defaraat ko alal yi nga xam ne ñeent ci ci doomu aadama ñoom ñoo koy a aakimoo ñu fexe ba delloowaat ko doomu aadama yëpp ni nga xam ne mooy jullit yi fi nekk ni ñu war a amee seen autonomie am xam-xam am kàttan am ay biens yoo xam ne ñoo koy moomal seen bopp loolu la keneen ku dul jullit di am ci réew moo xam ne lislaam moo koy doxal képp koo xam ne jullit nga ñu àtte la ci charia ku dul jullit duñ la àtte ci charia loolu mooy mondute ndax charia boo fa demee am na volet boo xam ne ku dul jullit mooy azimma ñi nga xam ne du ñu jullit nekk ci biir réew moo xam ne l'islam moo koy àtte am na benn volet boo xam ne ñoom lañ ko jagleel mbokk yi docteur Moussy il faut ñu ànd ak yéen ci nan la gouverner woon lan la jaar ba occidentaux yi ak yenn pays arabes yi nga xam ne dictateur lañu mooy seen njiit donte seen population nanguwuñu woon ñu teg leen loxo nanguwuñu woon dictature boobu mais amuñu fenn foo xam ne mun nañu wane ne kat lii suñu président yi di def lii suñu buur yi di def neexuñu ndax képp ku génn di marche ñu jàpp la tëj mbaa ñu rey la mbaa ñu jàpp la say mbokk xam ci lan nga nekk mbokk lii mooy seen première partie ci jaale kii di docteur Moussé yàlla mu xaare ko aljanna ndax wallahi minal mu'minin rijaalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila ñaata ay frères musulmans lañu rey ñaata lañu tëj ci kaso yi waaye docteur Morsi delluwul ginnaaw dengi dengiwul wallahi summa wallahi bi ñu ñëwee jàpp ko di def ay proposition waaye delluwul ginnaaw nee na man li ma gëm mooy carte moo fal dindi ñeenti at lañ ma fal tant que ñeenti at yi jeexul man waruma wàcc kon mbokk yi lii mooy seen première partie yu docteur Mor Sy incha allahu dinañ leen ko tënkal ci résumé boo xam ne euh, incha rab rabbi ñu bëri dinañ xam kooku mooy kan ak yan jikko la amoon est-ce que kooku jullit rek moo ko war a xam est-ce que kooku juif war ko xam kooku dafa nekk koo xam ne wallahi suma wallahi bu ñu xamoon kooku mooy kan ndax médias yi dañ koy mais ñun dañu leen nit ku baax la woon président yi bëgg a jubal yépp mun nañ jël ci moom exemple à l'espace de deux ans yu manqué un an ay huit mois mu def benn benn benn prouesse dans l'agriculture égyptienne dinañ ci ñëwaat incha allah ci vidéo bi wa ñëw wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh